di ñaanal euh, ñi ki euh, daw làqu yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm euh, ak fa ñu ne te fii ñu fi ñu nekk gënal leen fii ñu jóge ña jiitu yal na leen yàlla yërëm at leen ci yërmandeem ñi ci hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ñu mën a ñibbi ci jàmm ñi nekk ci tolof tolof yàlla na yàlla saafaral seen tolof tolof ñi nga xam ni tamit euh, dañu nekk ci tali bi di daw yàlla na leen yàlla euh, defal euh, sutura te musal leen ci musiba ak war waaye maam daan salaamaaleykum. waaye ma lay nuyu di la jaajëfal di la wax ne nam ka daan defee rek noonu lañ koy defee waate waaw mooy émission bi nga xamante ne mënatu la ñàkk ci réew mi. Mhm. muy fii la saa bu 18 jotee rek nga toog di ko seetaan di ko xaar. ñu war fee bëggal ay doomu aadama nuy wàccaare di wax ne bi may ñëw léegi maa lay wax ne la tiis wama fa bàyyi mhm. di jàlle wàccaare ñëpp démb ak tey moom euh, dëj yu metti ñoo fa am waaye nag euh, sunu boroom moom bu soxlaa rek euh, jàmm kenn mënu kenn mënu ci dara donc ñuy jaale ña nga xam ne ñoo am dëj caare yi ñëpp di wax sinimaar yaayam ji ka bi ka dëddu mhm. yàlla na ko yàlla xare àjjana ndax damaa xam digganteem ak yaayam ni mu mel maa ngi la koy wax léegi sinimaar doon nit koo xamee suma xarit la mhm. ma bi di jaay maa moom ñoo doon ànd mhm. yaayam ñu ko daan fekk ci kër gi mhm. mu doon maire bu baax mhm. waaw maa ngi koy jaale ñëpp di ko jaale waa Thiaré ñëpp tey nag moom mënta ñàkk loolu moom faw ñu jàllale ko di jaale waa Thiaré ñëpp waaw waaw mënul ñàkk parce que vraiment euh, euh, fi mu toll nii moom euh, réew mi tàng na lool lool lool lool lool mu ci man ak keneen ak keneen ak keneen waaye nag dañuy ñaan yàlla rek parce que nit moom li ñuy wax rek bul jaamu yàlla ba defe ni euh, euh, jaamu nga yàlla lu la dugal àjjana mm-hmm, mm-hmm. Euh, mm-hmm. bul ne ci safaan tamit ba defe ni acca naa continuer ca safaan wala parce que man bon naa ba pare euh, suñu borom duma ma jéggal mm-hmm, mm-hmm. Euh, njéggal moom yàllaa ko yor mm-hmm. waaw waaw waaw njéggal ak ajjana ak euh, dégg nga maam looyu suñu borom a ko yor ñu ñaan yàlla rek buy ñëw ci suñu kaw mu fekk ñu ci lu neex yàlla amiin amiin te ñu ñaan yàlla yàlla ñu bañ a tombeek mbugalu yàlla yàlla bañ ñoo jéppi ah yàlla teeruñu mm-hmm. ah, dugal na ci àjjanaam jooju nga xam ne dégg rek lañ ci am waaw dégg rek lañ ci am te yàlla jox ñu gudd fan ak wér mm-hmm. ah acca ñu ànd ceeg ah, suñu sponsor ah, leader suñu sponsor yi sax muy orange mm-hmm. Sonatel orange indi rek li nga xam ne mooy cinq g 5G bi nag liñ leen di wax rek acca éligible na fii ci Ndakaaru yow mi nga xam ne da ngaa paas 150 mots bi 150 mots bi boo ko bëggee. 250 mhm. euh, francs la. 250 mhm. francs euh, di nga surfer nga surfer tranquillement mhm. ah ci réseau bi internet bi gën a wóor ci Sénégal muy orange bien sûr. boo bëggee passe 1 euh, giga bi. dem ba 1 virgule 5 giga ba 5 giga bi. boobu mooy di nga maam li nga xam ni mooy 1000 francs ba 3000 francs. ah loolu 1000 francs ba 3000 francs di nga am 5 ah, giga. ah ci 5G bi loolu nag pour nga mën cee mbokk membrane ci sa orange money rek nga ko mën a jënd non seulement ci sa orange money moom nga ko jënd waaye sa application it max it max it nga mën a aw et puis euh, max it aussi mhm. euh, warul nekk problème parce que max it comme ni ngeen fi amee orange et moi mhm. waaw max it ci la ñëpp nekk ci la ibu nekk ci la ngay jënd mhm. ci ngay jënd paas yi mhm. ci ngay pay euh, sa carte rapido mhm. ci ngay euh, fay mën nga ci fay sa kanaal euh, kanaal plus mën nga ci jënd sa mën nga ci fay say facture waaw ah, ah jëf ci lépp li nga ci bëgg def uh-huh. ah grâce à maxi it ah maxi it moom boo ci xasee ba dugg jarul ngay dem ay un deux jees un deux trois quatre jees non non non nga bëgg jël yëpp mën nga ko jël nag euh, li nga xam ne mooy 5G bi moom. boo ci bëggee dugg nekk ca biir. waaw ah passe 1000 francs beeg 3000 beeg 250 bi. yii moom boo ci bëggee bénéficier wu. waaw ah ci 5G bi. Mhm. il faut que nga dem ci Orange Money. Mhm. Orange Money ni nga koy mën a demee il faut nga jàpp ci sa application Max. Max waaye di jaajëfal ak gërëm ki nga xam ni moo ñu gunge ci suñu émission boobu léegi muy émission fii la. waaw muy euh, euh, Dreams cosmétique. muy day by day bi. gaamu day by day bi mi ngi noonu affiché suñu écran yéen ngi koy gis noonu muy gaam boo xam ni pour xale yi la. waaw ah, am na bu ngeen bëgg rek fi mu toll gis nga huile d'avocat diwu euh, mm-hmm. avocat baa ngi mm-hmm. noonu. Mm-hmm. ànd ak li nga xam ni mooy. mooy shampoing bi ànd ak démêlant yi mhm. ànd ak parfum bi mhm. ànd ak lépp lu ay lingette ak mhm. lépp lu mën a parce que gaam la te xale bi mën a nekk ci épanouir épanouir sangu si sangu bi ko neex day am jàmm ah, xeeñ lu neex day am jàmm day am jàmm day am jàmm ñoom fàttewul gune yi ñoom danoo fàttewul gune yi xam nga ñii boo leen toppee xam nañ ne ah, gune yi ñooy war a doon mag ëllëg waaw dëgg la nag boo nekkee cim réew la tax ngay ah, war a jug ci gune yi waaw bàyyil sa xel ne ñoom ñoo war a doon i mag ëllëg waaw te xale lépp loo def ci ah, ah, moom ci ak ndaw du ko fàtte waaw mag nag mën ngaa dem ba tollu magam jëmma te fàtte dara waaye gune du fàtte mhm. moo tax ñii taxawaay bi ñu am ci gune yi ah non am na solo mhm. ak gune day set maanaam daal démb noo def ak taw bi eh. xam nga sa tawul taw bu métti noonu wala caaroy taw na ba tawul caaroy tawul taw bo taw boobu egsiwul waaye dama am ay vidéo yu ma jot waaw bu fekkee Touba hmm. noonu ma ko gisee hmm. mu mel hmm. nan ñaan yàlla ñu jug ci ndax màggal gaa ngi waaj a ñëw démb damaa foo foofu man mbedd yi ma gis Touba mën nga faa napp jën ah kay mën nga faa napp jën mën nga faa dawal gaal nii mbedd yoo xamante ne day tàkkoo leer nañ na ñàkkam ndox ndox mi yem fii ñit ñi ah na askan ah daaw askan lu daaw oto yu bëri kii nañ fa nag waaw léegi nañ ci teel a jug ah. màggal gii di ñëw ah bëgguñu dara lu ko xajamal waaw parce que euh, Touba moom ay millions yi millions yi doomi aadama ñoo yee nañ ci jug te nag kaay ma nit ñi waaw temps bi nga xam ne Sénégal ndeysaan yàlla bu mu fi jaarati. dafa eh, amoon eh, euh, oh, oh, oh, nit ñi dañ ñi woon ñoom bu ko ñoom dañ ñu tëjoon. il préfère ñoom eh nit ñi dañ ñi woon day xam nga gouvernement bi daf ñu woon day tëj am na ñu doon ñu dum ñu dumee ni dañuy màggal gi sax mën nañ koo. tëj tëj yoon yeeg yooyu. waaw nit ñi ni leen ñoom. waaw jaral na leen ñu dem corona bi dal leen fa. waaw waaw ñuy toog murit moom. waaw ndigal la. Ah, ndox teewu ko. déedéet da nga ko mel ndox ma moom nu mu fa mën a mel. boo deful ndànk ñu naan waaw defu leen ndànk ñu naan ko dañ koy naan màggali jaral na leen màggali de waay sëñ Touba jaral leen loppaloon ay ay BMW 45 millions 80 millions waaw ni nañ ndokk nañ xoos nañ xuus ci biir ndox mi oto bi fay moo seen yoon da cee ne waaw bala ñu ah, wane sëñ Touba leen oto bi dañ ko ciy def bu fayee ci bésu sëñ Touba jaral na leen mooy yow ah. loolu bettuma ci ñoom nga loolu mooy ak moo tax nag ñu war a jug ci ñoom xam nga <laughs> kosse bu naan kosse ñoom dina kosse ayca ma ngoog léegi nag euh, dama am invité invité bi. waaw man sama fans la. moom waaw kon ba kon neex na. moom gox ba mu ne. waaw imaam la fa. imaam. waaye moom imaam moderne la. Ah. ma ci ciy nuyuwaale sama sëriñ sama xarit euh, sëñ Fallou Rahman borom waaye ak euh, soxnaam buso ak waa kër ga yëpp ñoom Ablaye Fall ak Fallou ñëpp. Mhm. ñooy joxe garab ya sama sama kii yooyu ñoom Ablaye euh, nuñ tudd ah? ñoom Fallou Koroya ak Ablaye Ndiaye. ndeysaan ñooy joxe garab ya. waaw kañ nga ma fay di nuyu ñoom ñoom Cissé. waaw waaw waaye di nuyu Mohamed ak Cheikh yi. ndeysaan wallaahi di leen nuyu ñoom ñëpp. waaw kañ nga tam. non dinaa la yóbbu. waaw ah, da nga maa war a yóbbu foofu. acca léegi nag kon damay dugal sama invité bi. na jaar ni ci escalier yi. muy maam Ndiaye ah, imaam la ah, sol ak la sol. maam Ndiaye sànq nag nee naa la maam Ndiaye nga ne ma ndax savon. savon laa ca teg maa ngi ciy jégalu ndax kii mooy maam Ndiaye. waaw ah savon xam nga maam Ndiaye ji savon ji leen gën a min. da nga xam maam Ndiaye imaam la. maam Ndiaye imaam la maam Ndiaye. ah imaam nga imaam imaam ñëw na. salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullah. na def. maa ngi sant ala ana waa Géejawaay ma nga fay ñu ngi sant bu baax ana Sëriñ Fallou Rahman ma nga fay baax <laughs> imaam nag euh, damaa bëgg nga waxtaanal ma waxtaan wu neex kii moo dàq waxtaan ci senegal moom mi <laughs> ah waaye nan ko déglu kon nanu ko déglu kii waaw man maa ko sama bop faawal ko sama bopp ah wala Sëriñ Fallou Rahman ñu boole te yàlla tax ndeysaan nekk sunu wasi la nekk sunu lépp sunu sëriñ may suñu may nuyu sëñ Abdou Karim euh, Mbacke waaye du nuyu tamit sëñ Abdourahman Mbacke ndeysaan ndeysaan mii sëriñu sëriñ Fallou Rahman nekk ca daaray Kaamil ca Touba mm. sëñ bi na nga def maa ngi sant bu baax ma la nga nuyoo waa maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. waaw di nuyu waa TFM di del ci kilifa yi ñaan yàlla defal leen jàmm. waaw nuyu Sénégal nuyu xalifa généraux yëpp nag. waaw fa tabaarakallahu boo leen tuddee rek ñëpp dem jëw. waaw ndax lépp benn la tabaarakallah. waaw baax nag El Hadj Cheikhou yow. mu baax mi lee. ngay soppe di lépp. nga xam ne danu la yàgg a seetaan. di la bëgg am. dégg nga ko waaw <laughs> soxna Binte Ndiaye. sopp la. naan tabaarakallaahu nekk géejawaay. waaw soxna Binta Ndiaye daa soob. kaset boo mës a def rek day jaw indi rek ñëw tëjuñ te gu war ga wa daal di branché di seetaan di ree rek nga xam ni bokk nga ci ñi nga xamante ni nii am na ñoo faj te yoroo clinique ndeysaan ndeysaan waaw mhm. am na ñoo xam dañuy faj te yoruñu hôpital ndeysaan nga bokk ci ñooñu ñu ñaan yàlla defal la jàmm mm. ndeysaan ci barke yoon di la jaal tabaarakallaahu sa goro boobu ñaan yàlla yokku leeram bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag Sëriñ Fallou Ndiaye rahman di ko ñaanal yàlla ndax lépp moom la ak soxna Bousso mm. soxnaam di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn équipe ba nekk ci kër ga ak yëpp. di jéggalu tardement bi. boo gisee ni may xëxëtee sax xam ni émission bi. mais a lool mais yow xëxët jaaxaloo da ngay football. waaw man damay football damay ah. waaw. Ah, ah, football ban terrain football de. ah damay football euh, ngay football. ah ci mat laa lay footballé. man nag attaquant laa attaquant. li ngay. <laughs> attaquant xam nga du ma a dem di ñëw. waaw may taxaw rek bu ñëwee rek la ca sama wërsëg. ah yow ci <laughs> nga ne da ngay taxaw di ñëw la tey. la ci sama wërsëg rek. Ah. ma def ko ci am na benn bis ñu am match bi ñu ñëwee yàlla nàkkal ma bi ma ko mbëkkee. waaw daal du koy wàccee ci dënn bi dóor mu dugg. waaw man ni du ma ci raxaat dara. muy yàq ma yamale. nga génn ma génn man kay noonu sóor yi def laa def nii. <laughs> yaa doon sa bopp ah? <laughs> moom wee nag imaam moom day àddunaal li sëñ Modou Kara Mbacke ndeysaan sama sëriñ bi bu baax bi sëñ Modou Kara papa yi papa yi papa yi papa ak Mahfouz ah, ndeysaan li muy wax naan hmm. àdduna dañ koy kennal damay kennal ndax bu solee bu solo yërëm yu rafet yooyu ndeysaan ñi ñi di wax mu ni leen àdduna dañ koy kenn dañuy dañuy àddunaal mm-hmm. dañ koy àddunaal moom day àddunaal moom waaw moom day àddunaal mm-hmm. léegi dama bëgg ñu waxtaan mm-hmm. ci sëy léegi oh, sëy sëy léegi ni ko gone yi jàppee teg ko seen cati loxo yi tontu seen jëkkër daggasanteeg seen jëkkër euh, euh, euh, defanteeg seen jëkkër alaaj seexu xanaa yëgoo nii waaw damay faral di wax ni xale yi tey yi door a takk soxla dama leen a yërëm lu tax parce que seen seen njëg mi seer na waaw te gone yi duñ leen defal luñ bëgg ndeysaan ah. Ah, waaw waaw ah wax na dëgg ah. léegi toll nañ jamono boo xam boo gisee sëy yeex waaw léegi xale bu góor bi ci boppam sax mooy am kersa mm. eh, eh. parce que ku ci amul iPhone 11 wala 12 13 waaw doo nangoo joxe dootoo nangoo takki. waaw ndax faw nga am iPhone 13. parce que mhm. ñii ñëw di xool si may bu njëkk bi ñoo njëkk a xool portable ba ban la la may. boo fee nag ba indi bii ma yor man. Eh. dañ naa kii fu mu yabee. waaw faw nga indi iPhone 13 ba pare teg ci téeméeri junni. Ah, te téeméeri junni du caaxaan. ah loolu tuuti li tuuti na de. Ah, li nga wax tuuti na iPhone mi ngi ci 15. mi ngi ci 15. defe naa bi ma koy mujjee laajte 950 000 lañ ma waxoon. voilà. téeméeri junni moom moom la ñuy jox lekku ganaar yi ci kër gi waaw ak ñi indi boole añ yi loolu la ñuy jox cinq cent mille xale yi léegi ay dix millions nga leen di may ah ba léegi duñ la séyal lu tax te sëy du caaxaan waaw li tax ñu la séyal mooy mm. mm-hmm. jigéen da am na jigéen ñoom da ngay xool seen compartement rek xam ne ñii seen xol yi sëy newu ci eh. ah. waaw dama ko wax sam benn doom barki démb ci jouru tabaski waaw mujj bi mu mer dindi weeyi dama xëy na ko fompal ma oto bi boobu raxas naa ko mu fanaan mhm. fompal ñu war a tabaski ji kër gi man ko fompal ma oto bi mhm. mais ni mu téye morso bi laa ko ne bu fekkoon tey da waroon a sëy doo defal sa jëkkër dara mhm. ndax oto bi sa mënoo koo fomp ndax ni nga def sa weey yi ma ko ciy xas bi ñu demee ma ni ko yow bu ñu demee kër ga nan ngay daggee soble ak nan ngay doggee pomme de ah, terre danoo dogate waa jigéen bi nar a sëy ndax dina xëy monte ay weeyam ba mënta jàp kon am na ci ñoo xam ne nañuy comportement woo ngay xam ne ñiy sëy intéressé wu leen te jigéen ñi tey bu la ci kenn nax mm. dañoo xam ne bu ñu xëyee yàqu mu jur problème mm-hmm. léegi nag dañuy profité ut borom kër tàppaas ko nag dem seen demuk bopp mm-hmm. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah imaam loolu comprendre loolu yomb na de imaam loolu loolu xam nga li mu bëgg a wax imaam xaa ah, xam naa li mu bëgg a wax <laughs> waaw dana wut bunte boo xamee ah, loolu mooy mooy tax ñoom kenn dootu leen a baatal dana am na ba pare am na jëkkër boo xasee am jëkkër léegi da nga yobbal sa bopp jërëjëf léegi loolu doo ko mën a ñaawal waaw nag tegee ñaari fan ñett hmm. bu nekkee ci kër gi dematu nag moroomum jigéenam boo xamante ni ne hmm. Eh, maanaam entraîné na boppam ci caay-caay ji nga ma noppi. moo koy woone ko yow nan nga nar a nekkee nii. Mm-hmm. di toog di def nii. waaw dawut sa appartement. waaw wala nga ñu. Ah, ah, na leen yomb na leen am na. yomb na leen dawut sa appartement. Mm-hmm. wala boog nga ñëw sama appartement ñu associé. waaw. boo gisee léegi loolu moo tax adduna yàqu. Mm-hmm. moo tax bari na kuy waar. wala nga dégg koo xamante ni mi ngi ci jamono nga yaakaari ku lépp. fekk na bu xëyee dem fanaani këram. waaw guddi ga la mu ca xaaj yëpp ca ñee la ko dem. Eh, eh. ah. mais ah wax na dëgg. mais balil insaanu ala nafsihi basira. la ilaha illallah. ayla adduna bi dafa jot ñuy waxante dëgg. Mm-hmm. waaw. billahi wallahi taalaay bari na ku lay waar ba ni géex. attention. Ah. Mm-hmm. non la góor gi borom télé bi waxoon Youssou Ndour. waaw xaaja guddi buñ toogoon ba mu yàgg mu doon bëccëg sama papa ne kopp naa def. yooyu <laughs> <laughs> ah day yàqu. bu ñu demee ba ba jekki leer. Eh, ah dina ah. mu yàgg. waaw mu doon bëccëg papa ni ko lan. ëpp naa def waaw parce que li tax mooy. waaw xam nga sama papa nitu yàlla. Ah. waaw liggéey wàcc. ko xam. Ah. waaw mu ni ëpp naa def su boobaa daa gis yuuxu jub fu nu waaw waaw. Hmm. Hmm. mais loolu foofu la àdduna tool. dañoo eh, eh. nekk ci réew mu naqaree waxal hmm. mais waat naa ci yàlla bari na koy topp ci ginnaawam def yëpp eh. xaaju guddi boobu ñu waxoon bu ñu ko ni woon futeet musiba daal def ëpp naa def dañ koy tuub oh. ba daa taxaw di jiite ah. nekke am na ndaw su koy fitnaal ci koñ bi hmm. waaw bi mu dee ba ni allah avant ma yegg ci akbar ah. am xale bu jigéen mu ni wóoy hmm. xam nga lu mu ci am benn waay bu ni wooy ah. xamul fu yuuxu ba jibee de waaw benn waay moo ni wooy wooy waaw imaam ne teg hmm. ne baax na tudd ngeen ko bàyyi rek waaw dañuy <laughs> bañ mu wax tudd ngeen ko bàyyi déedéet pour moom defe na ni foofu nu ko doon toroxalee waajoo fa la yuuxoo waaw waaw waaw waaji ah. ne wooy te moom kabbar na ba pare naan allah ah. di wooy bi jib waaw tudd ngeen ko bàyyi rek baax na <laughs> te moom daf dafa daan jaar. mais noonu lay demee. Mm-hmm. fa tabaarak mais yàlla na ko bëri sutura la. ndeysaan ndeysaan. nuy ñaan yàlla defal nu jàmm defal nu sutura. Euh, ànd ak lépp nag. ñu bàyyi suñu boroom lépp. waaw yàlla gën a mën yàlla. Mm-hmm. am benn yàlla bu mu doon wut. waaw mën ta fexe ba am ko. ne ko nu nekk nag. waaw mujj mu dem ci àll bi yëg ci benn garab di ko sikkar. waaw. di zikar di zikar ba mu yàgg bi mu xoolee ndeke am na benn imam boo xam ca koñ ba. Ah. xale bu jigéen bi da ko fitnaa loon. waaw fitna bu metti ah. bis nag xale bi ci caay-caayam. Ah. bëgg a dox ci maayinam. mu ni ko dama bëgg li nga bëgg dinaa la ko defal. waaye da ngay bàyyi ba aljuma ci une heure ñu dem. Mm-hmm. bon imaam bee ko lool. waa ndaw si. ndaw si moo ko wax lool. Hmm. imaam ni ko oh, une heure damay julli ji. waaw te une heure trente mënuñu fi seq ba pare ma waaj fi dem jàkk ndax eh! deux heures na ma fekk ci miiraat bi waaw dama ciy jàngal rek maandute ak sutura waaw ata demal bi mu bi mu bi mu bi mu ko waxee loolu hmm. mu ni ko d'accord naa comme topp na koy at mu jaral ko hmm. uh-huh. bi mu ñëwee ñu wéeru ci taatu garab gi hmm. mais garab gi ñu wiiru fi la waaj ji toog doon sikar turam woowu ngir bëgg yàlla bëttal ko tur wi bi waa ji sànnee bëtam ci suuf xool leen ñu tata foo waa ji téye naat continue turam di sikar ba ñu pare dem ca taatu garab garab ko doon defee waaw ah yàgg nañ ba mu pare daal di dem waaw bi mu demee waa ji wàcc ndànk ci seen ginnaaw ndaw si aw gauche imam aw droite jubali jumaa ja sanguwul jana ba toog ca mihrab ba ñu noddal ko eh. ah. waa ji dugg topp ci moom it waaw lu mu def non imam seetul duma ci toog. waaw mais dafa dugg toog. waaw def ñaari rakka am toog. waaw imam xutba ñu li xutba ba pare ñu amal ko mu jiite. Hmm. waa ji ànd ak moom jiite def yëpp. pare yéegaat ci kaw garabam toog continuer turam. Hmm. waaw ñu xamal ko ni tur wa nangul nan la ko tey. ndax maanu maanu gi nga maanu. Hmm. ak sutura gi nga suturaal imam. sutura dafa baax ça. ah mais léegi mais léegi mais léegi am am solo la wax. mais léegi xale yu jigéen yi dañoo suturaalootul. ah bëgguñu ko. dañoo suturaalatul seen borom kër yi. dañoo suturaalatul waaw xam nga dama ko waxoon ci benn télé. waaw mooy télé bi ma demoon ba ñu dagg sama digganteeg ndaw sax. <laughs> waaw loolu dinañ ci ñëw loolu dinañ ñëw. dinañ ñëw télé boobu. bi ma demee dama leen nettali benn qissa. waaw man leen dafa am benn jigéen ci jamonoy Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam waaw. ndaw si dañ ko may borom kër ñu sëy vingt iina un ndaw si mosul am doom. waaw te it jànk la. waaw faatu. waaw bi jëkkër ji faatoo mu tënji ñeenti weer fukki fan mhm. tënji wa jeex mu ñibbi këram mhm. ñeenti weer baayam ne ko doom dama lay maye mhm. mu ni ko ah, papa te nga bàyyi noonu mu ni ko ah, dama ñu xëccoo ca yàlla dama lay maye bugguma dama lay maye bugguma bàyyi ba sonn dem ci rasulullah sallallahu alayhi ni ko sallallahu alayhi wa sama doom ji ba ma ko maye vingt et un ans jëkkëram faatu ba léegi nangul amaat jëkkër te loolu dama bëgg nga wax ci waaw yonent bi woolu ndaw si ñu toog mu ni ko sa baay ñëw na fi hmm. nee na sëy nga vingt et jëkkër faat na te bañ a bëggatoo am jëkkër hmm. lan moo tax mu ni yonent bi alhamdulilah yow dinaa mën a wax ak yow ndax yow wama yantiqu anil hawa in huwa illa la ilaha illallah ah, yow yàllaa la yaral boppam teel la sa lammiñ hmm. yow bokkoo ci ñuy weer doomu aadama hmm. te it yow la nu yaakaar fii ak fan jëm sama bërëm kër keroog ñu ma ko joxee ba ñu mu sàngoo suuf ñaar fukki at ak benn ñu sëy hmm. yàlla da koo nattu woon mosul doon góor te su jëkkër rek sekkeram day feeñ ndax ma bëgg ko suturaal ba yowmal qiyaam nu ànd yàlla may nu aljanu demaat. la ilaha illallah. ah loolu jafe na. loolu dina fi jafe. fii nag tey koo ko fi defal xam nga koo ko daan sa morom. Ah. Ah! sëy da koo jar. waaw lekk naan am na fépp. waaw waaw. sutura waaw am na sa kër baay. waaw fekk sëy du loolu bu dee loolu rek ciy dabu. waaw yaag mala bi ci kër gi yéen a mais mais mais mais mais mais mais mais mais Imaam. waaw xam nga émission bi émission la boo xam ne émission de divertissement la. mais ajjuma yi dama ciy taamu. indi ci ñu mel ni yéen. ngir ñu jëmmal bés bi. moo tax ma indi la xam sa mën a waxtaan. Mhm. déglu sa waxtaan. Mhm. li gën a dangereux te ñii xale yu jigéen ñi di ko def. Mhm. am na sax góor yu koy def ah. nekk ak seen soxna wala nekk ak jigéen sëy ko ba noppi. génn nettali na na ñu sëyee. lu ko gën a xaraam amul. ñaara ngi moo gën a xaraam ci àdduna te ñu bari moom la ñuy def léegi. waaw mooy sang néew xëy di ko nettali. ah am na ñu mën a nettali. am na ñu mën a nettali. dañuy nettali. am na ñu mën a nettali yow. ndaw sa ca jamono imam Malik day sang néew bi. waaw ba ñëw ci kanamu ndaw sa teg ca loxoom ne ko xamoon nga ni di nga dee. oh oh oh oh. di mooy yàlla rek. oh allah. Hmm. waa lii kenn du ñu wax ah sang ne doo war a noppi lu ne ngay gis da nga war a noppi <laughs> ah maa ngi nuyu Cembay Cembay ma ca caare moo dax xas a gasab néew moom daa day saan maa ngi nuyu day gas rek fan yi dafa tooyoon tooy gu métti waaw moom maas. day gas ay néew day eh, tooy gu métti. sax gas néew gi sax fi mu jógee ko wax. waaw léegi waaw <laughs> faatu jigéen la. jigéen la. waaw ndaw si di ko sang ba ci kanamam teg ci loxoom. ne kanam bu yàgg mën a mooy yàllaa ngeen. kon ngeen doo dee. xoola loxo ba tag fa <laughs> ñii xaar néew bi ne waaw kii sangam bi daa yàgg ñun nañ leen ko xooli. la ilaha bi ñu ñëwee fekk loxo bi tag ci. Oh. borom xam-xam yi imposé wu. nu ñuy def. <laughs> Mhm. ñii ni nañ dagg loxo bi. dagg ñii ne déedéet ndax du ñaaw ñii ne nañ lelli fam nañ lelli fam ko teg. Eh, ñii ne eh. kenn ku nekk indi version am. waaw ku war a lelli ay lii. ku ne indi version ah man da xama koy leen li xamoon naa ne moo ko fi indee mu laaj ma barki yàlla xamoon naa ne moo ko fi indee mu laaj mu laaj ma ñeenti ñi bu leen def noonu kii waaw ne seeti borom xam-xam yi waaw mais da koo jéppi woon a tax mu def ko loolu mais ak ak rii lame waaw biñ demee ah, mën na ne mën lan moo mën a ne maanaam li mu def. waaw mën nañ ko àtte. waaw mais ci kaw condition. waaw da ngeen koy laaj bi mu ñëwee ba ci kanamu ndaw si lan la wax. waaw. ñu ñëw ne ko da ngaa bëgg mu sa loxo deñ mu ni waaw ñu ni ko lan nga wax bi nga yegg see fee mu ni ay la yéwén dama ni. waaw kanam gu yàgg mën a mooy yàllaa ngi. ñu ni ko da ngaa oh. tuumaal gor. yoonam newu ci ko mosoo koo teg bët. yoonam newu ci. ñu ni nu ñuy def. Hmm. imaam Maalik da ngeen koy dóor juróom-ñetti fukki yar. Eh, sa ngama mu jënd am ko dóoree juróom-ñetti fukki yar ca la loxo ba deñ waaw sanga ma mujj la métti. mais Sénégal du dañoo maandu woon. kon de ko doon def fii ak. ginnaaw alaaj seex xanaa yëgoon ni góor boo ko fekkoon ak jigéen du da ngay ñëw rek ne mi ngi nii. waa koñ bi génn tàccu. Ah. non doxewut noonu charia yaa waxul loolu. Hmm. Ah. comme munoo maandu rek te yàlla mi leen fi gis moom gis na leen maandu. waaw waaw da ngay delloo bunt bi dem uti ñetti seede yu bokkul fuñ dëkk. bala ngaa ñëw ñu dem bala ngaa ñëw ñu dem. dañuy dem dañuy dem bu dee góor dana pare. man faa yàgg noonu bu dul góor nag nag bu ca nekkee bañ fekk ko ca nag su boobaa yow ñu bàyyi la waaye bu fekkee ñu pare ba toog di naan seen war nga doon ca kaam nga. dañ ah. lay dóor juróom-ñeent fukki at. Eh. xam nga réew mi naa bëri ñi nga xam ne dañuy sëy seen jëkkër yi yeewu suba. waaw loolu lu koy def seen copine woo ñu ne ah non monsieur démb xaw naa koo ree wala na monsieur ma ngay nelaw démb xaw naa koo naan nii laa ko def nangam laa ko def mais loolu ñi ci jàkk yi fajar sax dañ koy waxtaane barke alquran moom réew mi dafa yàqu maanaam réew bi éducation moo fi manqué éducation bi lan la ñuy waxtaane maanaam déglu ma rek éducation yi waaw ci maître yi la échec lan maître yi ñoo njëkk a échec waaw moo tax élèves yi échec ruux siiru maître bu échec élève day ruux siiru mm-hmm. da ngay dem ci jàkk yi ñu koy waxat eh saa yi naa jege de xanaa ci seet bi nga fanaan. Ah. xanaa ci. seet bi nga fanaan. Ah. ay ma dégg ko ba taay. ci seet bi nga fi naan bu ko defee ñu ubbi waxtaan. waaw nga ubbi débat. waaw. <laughs> waaye nag am na ñu mën a donn ah, waaye. waaw mais mais loolu am na ñoo xamee donn am na ñu ay ñoo xamee. ñoom sa dama bëgg a donn waate loolu lan la. mais teguñu ko fenn. ah mës naa ko waxtaane am benn góor gu ma ni man lay gaaruwaale. waaw te xaw ma lu xew. waaw boobu ci jumaa ji laa ko waxtaane nga ni ko lan mani leen. Hmm. bàyyi leen donn njabootu jàmbur yi. seeni baay bàyyi leen alal. ngeen ñëw élié ngeen am ak seq ak ndaw sa. lu ngeen ko def ngeen teg seen bët ca alal ja ñu leen cay ganaaral. Ah. benn ganaar goo ca lekk. ca alalu njaboot googu. Hmm. lu dul sa borom sa. sa soxna. Mm. moo jël ca la mu am moom terale la ko. waaw na nga yëg ni sawara ngeen di lekk ci seen biir yi. nekk eh, am na lu xew ma génn góor gi ne man ngay wax dañ la gonflé ma ni ko wallaay man ma ni am nga soxna sax. la ilaha illallah yëgu ma ko am Sénégal mooy dëkk boo xam dafa toll ci màbb. ko yëgu ñu ni yaa ko yëngal. waaw waaw waaw waaw waaw ah, moo tax neexatu la waxee. waaw neexu la waxtaanee neexu la waxee dafa eh, metti. mais loolu képp ku koy def dafa xaraam. Mm-hmm. ki faatu bàyyi alal ak i njabootam. waaw boo amatul loo ca dolli bàyyi leen ak seen i alal. ndax nit boo koy takk da nga kaa war a takk te yàlla danga tax sëy. képp waaye pas ah, mu am njaboot am xaalis ñu ñëw takk ndax loolu. waaw waaw am na ñoo xam ne. waaw doon rek la ñuy doon doon boo leen gisee ñuy ñawlu rek pour doon la pour doon kooko sama invité bopp sama fan su bopp euh, imam euh, maam Ndiaye mais nag bu ñu àgg ca póot ma. <laughs> ndax loolu naqari na ko trop. waaw imaam imaam waaw nee na bu kenn fuural. waaw muy sunu xarit ak euh, sëñ Fallou Rahman maa ko invité sama invité d'honneur la tey ci àjjuma ji. mu mën mu mën waxtaan ak yow ci yàlla. waaw mën a waxtaan ak yow ci yonent bi. Mm-hmm. mën a waxtaan ak yow ci àddina. Mm-hmm. waaw looloo tax ma woo ko fi il est très fort waaw loolu am na ndax moom boo ko ci seex da ngay moom ñoo bokk génération waaw ah, benn la rek ah. waaw xam na xam na xam na xam na li boo li li boo li goos yi di doxal ci dëkk bi muy xam na waaw xam na xam na aca gu ànd ceeg suñu sponsor euh, leader orange ak It ak euh, orange money yow mi nga xam ne da bëgg euh, activer sa sa sa sa sa sa 5G. 5G mhm. euh, bi nag euh, passe internet bu bees bi nga xam ne mën nga am mo mots. 150 mhm. mots bi nag euh, li nga koy amee ci 250 francs 250 mhm. francs nga surfer tranquillement tranquillement ci meilleur réseau bi ci Sénégal mooy Orange. wala nga jël 1 giga wala 1,5 giga bi wala 5 giga bi sax ci boppam. passe internet bi dina jar entre 1000 francs ak mille francs hmm. mais yii avantage yi yaa ngi ko mën a amee lu dul ci euh, ci euh, orange money. Mm. mais pour nga koy jaar ci sa orange money tamit. il faut nga am application Maxi It. Ah. Maxi It bi nag dem leen ngeen téléchargé ko boo leen ko téléchargé ci seen Apple Store wala Play Store. Mhm. di ngeen mën a am seen euh, application Maxi It. Mhm. lépp lu ngeen bëgg a def ci lu Sonatel di def rek. lépp lu ngeen mhm. bëgg a xam mu ngi ci seen biir téléphone. Euh, du jar sax pratiquement ah, pas ngeen di dem ci agence Sonatel yi wala ngeen di dem ci affaire yooyu di ngeen mën a am lépp euh, ñu génnee di. gaamu xale bi mooy mooy day by day bi ah ah ñoom dañoo bëgg xale yi ba wutal leen ah, gaamu diw gaamu parfum mhm. ah boo xam ne ànd naag diw ànd naag parfum ànd naag démêlant ànd naag euh, shampoing mhm. lépp lu xale di soxla ci set rek Mhm. day by day bi waa Drams cosmétique indi nañ ko. imam ñoo yooyu ah, ah, ah, ñoo yooyu Mame Rane ma bàyyi la nga nga nga laaj. waaw waaw waaw imam da wax loo xamante parce que yéen ñaar damaa bëgg ngeen seq waxtaan. waaw ñoo wax loo xam ne dafa am solo. waaw ndax moom lii muy wax nii. waaw moo ne ci réew mi boo gisee ma a ko donn. Mm. wax ko foofu fu ma ko dugal moom xam na ne loolu moo am ci réew mi. dafa bari ñoo xam ne dañuy takk euh, soxna. Mm. te takkunu ko te yàlla tax. Mm. li tax ñu koy takk mooy xam nañ ne ki alaaji bi dem hmm. am na lu mu fi bàyyi hmm. li mu fi bàyyi lanu bëgg a lekk bu mu jeex doog a ne yàlla meer ba dem léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne dañuy wër di ñawlu rek hmm. ñawlu ñu lulul dem di doon waate loolu nag lan war a arrêté ba pare dëji léegi laa ko bëgg a laaj lan moo tax ñit ñi bu ñu nekkee ci euh, euh, ci euh, almeer yi du nu delloo seen ah, seen xel ci nga xamante ne ni tey mooy ki nga xamante ne mooy aji dem ndax léegi dangay dem ci almeeri gis ñuy waxtaan dañuy fàtte sax. waaw ah, ah, bi nga ñëwee léegi ni ma dëj nga jógee loolu nga ma doon wax. waaw damaa ñëw am ñu gis émission bi lan ma ko man maa ngi am ker kersa maa ngi déplané waaye ñoom ñu ngi ci yëfi àddina ay Barça Real la ñuy waxtaanee ay ay Atlético xam nga dëj léegi. ba pare mais léegi imaam loolu dégg moo bëri. ba dee safatu leen. wala lan la wala àddina bi la. alaaj seexu. waaw ma naan. Mhm. benn affaire bu am waaw bu nuy faatu yàlla bu na fekk saison bi tëj. Oh. luy loolu champion bi aju. waaw championnat bi waaw. Mhm. gis nga ku fi faatu fekk championnat bi am. waaw. mbër yi war a bëre. waaw comme ça tey jii dimanche bi di ñëw ku faatu woon tey da ngay am problème. kenn du la tal. ndax bu nuy dem di gunge néew bi. ci mhm. ñaar yooyu la ñuy nekk. waaw ci ñaari mbër ya ca la ñuy nekk. <clears throat> même ñaan bu nu ko joxee duñ ko teewlu moo tax attention. Hmm. kuy tund ci àdduna ñaanalal sa bopp bala ñu laa def ci ba eh, eh. ndax nit ñi bu ñu toogatee léegi dootuñu la faale alaaji wax nga ko nit ñi la dee safatul. woo benn paa gaañu na suñu waaw yal na ko yàlla yërëm. waru naar la woon yàgg na. waaw. ndeysaan bi mu faatoo ma sob dem ca rob ba. di yëndu nii. booba booba nekk koy maam. ma yëndu. bi ma yendoo ma gis ko ak ni mu weexee noonu ni ñu ko muuree. Hmm. guddi gaw nanguwuma fanaan ci sama néeg. de ndax mi ak géej sama néegu yaay laay sama yaay doo fanaan de man ko woo. Oh! Hmm. kon ma dee fii laay fanaan. waaw su ma gëmmee day mel ni néew ba lan ma indil. Ah, waaw léegi de dañuy mbaxal. mais xoolal léegi. dañuy mbaxal mbaxal yi koy xippa maa ngi koy sang. Hmm. maa ngi koy jullee. tabaarakallaahu. miis naa ko. da ngay sang nii. waaw bu njëkk bu njëkk boo déggee néew. mbedd mu mu jaar doo doo jaar léegi nag loo boo toggoon ñaari ci genn waa liibaru ceeb soo ko toggoon ci dëj bu bees du jeex. léegi nag da ngay dégg ñu ne ma dëj ba 134 mbana lañ toog. waaye ak mbaxal yu tooy xippa. waaw 40 ya lañ def. ay lan 34 ya lañ def 40 34 ya lañ def ay ci ni mbaxal. waaw 100 yëpp ceeb la. ak boisson ñenn ñi naan man de ca mbaxal ma laa bëggoon. waaw. di di joxe boisson di joxe lépp. waaw loo togg mu jeex. ñenn ñi yég ci. moo a ah moom de lewet na bu nu amoon mm-hmm. soosu kaani jël. waaw te ci dëj lañ nekk. <laughs> moo tax moo tax boo jigéen ñi def seeni i woyof. takk weer yi toll ni pare nag. toll waaw danoo man dëj. kenn ku nekk teen. waaw kenn dee safatu leen. waaw te yàlla nee na. Mm-hmm. bàyyi leen ko xel. Mm. qul inna al mawta alladina tafiruna minhu wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun bàyyi leen ko xel waa jaa ngi xëy rek di leen koj fu ngeen jaar mu koj leen bise yi ñëw rek mun leen taj ñu ne <laughs> laa ilaaha illallaah. jërëjëf. laa ilaaha illallaah. Eh, laa ilaaha. maam daan na ko kullu shay'in faani illallaah u baaxee xam nga lan moo tax ma xooloon. ah laayeen buy yóbbum néew. waaw loolu lay yóbbum néew. waaw bu demee ba ñëw. Mm. ci kër gi. waaw loolu lay ah, tàggatoo ak ñi nga xam ne ñooy borom néew bi. ah loolu laayeen la am. waaw laayeen loolu lay demee. te kaay ma xamal la waaw maa ngi leen ci profil di leen doon sa way wi kat daf maa tiital ma. waaw mais noonu la ñuy yóbbu ne ñu. waaw ñoom noonu la ñuy robee ah. ba pare ba pare ba pare. maam daal yow tiital nga ma de. <laughs> ba pare ah non si si. ah ñu nekk suñu émission bi di doxal ba ci yàgg rek. non fi nu nekk non maam laan fi ma dugal tiital nga ma tooñ nga. loolu la laayeen du yóbbu. maanaam ah, alaaj Seexu dafa yéeme. waaw dama ni la. waaw bari na néew bu xëy daanu ñu ni malaise la. waaw lan mooy malaise mu ni kër bu taxaw. waaw yàlla ni malaiseul bu leen jàpp ni yéen àdduna kër bee taxaw man yàlla maa ko boloke ci kaw. Hmm. Ah. ndax daa war a dem loolu du malaise yàlla nee na maa ko boloke ci yow. mais ñemee nit ñi malaise rek la ñuy wax. mu ko maa dajeek moom. Hmm. man na ku ma dajal nga malaise ku ma dajal jëmm joo xam ne mosoo koo teg bi. bay hmm. tey boo ko tegee bët. Ah. faw nga malaise mooy kër bu coupé. la ilaha illallah allah. alaaj seex xam nga nit ñaat doomu aadama ñaata malaakaa koy rey ah du benn de ñaata juróom benn fukk ak benn ñoo koy rey soixante ans malaaka vingt ñooy njëkka a nal arrêté ñooy njëkk a vingt nal nal ruux gi waaw arrêté hmm. vingt nalaat arrêté xoola moo tax nit booy xool ndax dee fii ngay tàmbale fu mu romb day sedd waaw xoola fu vingt nal rek mu sedd ba fii malaakal mawtu yaar fa rek romb cas yóbbu tey bu fekkuloon nga gëm yàlla inna allazina qaalu hmm, rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla ah. taxaafu wala taxzanu wa bisiru biljannati alladi kuntum tuadun la ilaha illallah buñ juróom benn fukki nalee ba pare balaa malakal mawti jël ah soixante ñooy nal ñooy nal malakal mawti ñëw ah! su ñëwee nag bay jël xola ñaari xullee koo am nii benn mm. nga xulli ko ruux gi metti na mm. wala nga xullee ko fa nga jëm neex mooy aljanna ah da ngay xam fa nga jëm mm-hmm. yàllaa ko wax qaalu rabbuna la summa staqaamu tatanazalu alayhim almalaika alla taxaafu ñooñu nag juróom benn fukk du leen rey ñooñu bu juróom benn fukk yi ñëwee ba pare da am ñeneen malaako yu ñëw naan leen laa taxaafu luy laa taxaafu ragal wala taxzanu bul jàpp wabsiru bégal bil jannati lati ah loolu mooy boo demee boo naree dem fële boo naree dem fee waaw ñooñu ñoo ñëw wax la ko mais boo naree dem faja des nag ah. malaaka bi di ñëw rek bif daal di yóbbu nga xul du la tiital sànni loos ba ñu naan daa malaise kër ba taxaw ma ne leen luy malaise ñu ne kër bu taxaw ma ne kër ba taxawul fa innahu mulaaqikum summa turadduun <laughs> yàlla dajeeg moom tey la bisu delloo day dem waaw léegi ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñun bu ñu demee ba fële ci la ñuy soog a xam ne ñun fi ñu nekkoon nii dañ doon nelaw ñu ni fii àddina nelaw la dañuy nelaw waaw àdduna fii mooy nelaw bi dañuy nelaw nii waaw léegi naa loolu la de ku dee yeewu waaw dégg naa ku dee yeewu ku dee yeewu wala mën na noonu nelaw de ku dee yeewu waaw buñ demee ci bàmmeel nag ba ñu la indi woon dem sa nopp kaw bi dàll yi taf-taf yi lay dégg ñu defee juróom-ñaari tànk yàlla yebal ñaari soldaaram ñu ñëw ne la jógal boo toogee nag ba jàkkaarloog ñëw ne ah oui c'est vrai kon man ndeke dee laa def lii nag doon nañ ko waxtaane <laughs> ñu laaj la ti question yi boo ko trouvé ça va boo ko trouvé wul ah yàlla karim la non ma ñeenti question yi mooy yan <laughs> kuy sa borom nga ne waaw nga ne yàlla nga yàlla mais day fekk nga gëmoon yàlla de waaw kuy sa yonent nga di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw huwa allazi arsala rasula wa dinil haq ñu ne ah ban diine nga ni islam. waaw ban nga ni tabaarakallaahu eh, eh, islam yonent bi sallallahu alayhi wa diine ko sa téere nga ni alquranul karim kenn rek lañ mës dugal bàmmeel muy reetaanloo gars yi rasulullahi nee na su ngeen dugatee bàmmeel bu leen di ree bu leen di ree bi daa woon ko ko doon reetaanloo bu ngeen dugatee armeel bu leen ree waaw rasul dugg bàmmeel muuñ waaw yonent bi dugg a bàmmeel ci armeel yi muuñ muuñ bi mu muuñee ba pare nag. Mm. biñ jibisee ci kër yi saxaaba yi ne ko yaanu ni woon. bu ngeen dugg armeer di mu di ree. di muuñ wala ngeen di ree. normal leen ñi fi ne. waaw yonent am ku mu doon rob benn waayam nu ay maan. waaw moo ko daan reetaan loo soppoon ko. waaw comme yow rek abalaat yow ni ngay defal jaam yi. waaw ni saan xam naa yaay nu ay maanam rek. waaw waaw nu ay maanu Fallou Rahman yaa sëñ Fallou <laughs> bi mu duggee. muuñ. waaw bi mu ñëwee saxaaba yi ne ko rasul yaa ni woon duggo duggati bàmmeel ba mu ree. te da ngaa dugg muuñ. waaw mu ni nu ay maane neex mm-hmm. xoolal reetaan loo na ma àdduna ba ca malaaka yi ma ngi leen di reetaan loo waaw kooku daa dugg bàmmeel na ko jóol kuy sa borom mu ni yéen a tardé mm-hmm. yàlla bindi leen teraanga gi leen defal toppoo leen ko xam mooy kan ba ma koy laaj loolu la leen wax ngeen a def li yéen laay laay <laughs> gaa yi ko diree ak neex fa la jóge ci moom rasulullah xabibu bi asraaril qulubi mu nal mu rasul oh sama waa ji yamatul sax ci reetaanloo àdduna ma ngay reetaan leen malaaka yi ca biir bàmmeel la ilaha saan ndeysaan te moom lañ doon rob te moom la doon rob waaw ah, yonent bi waaw mais mais mais lii yëpp est-ce que nit ñi dinañ ko déglu pour di topp suma borom mais mais mais nit ñi duñu ko déglu nit ñi dañu war a mm. topp seen borom bi ci desit ñu yolomal mm. lu yoolu yolomal gi mooy mm. ñiy waaraate waaw oyofal ko dëgër xam métti de xam nga nit ko ah, koy wax koy daakaande koy wax safara ba mu ragal ba mu eh. ba yàlla am na ñu ko wax ko aljana ba mu gëm yàlla sopp koo gën waaw waaw ay jàpp ah, yow fi ni ñenn ñi dañu dañu dañu dañu xaatal affaire bi ay safara rek am nañu dang de waaw am nañu dang am nañu metti waaw ñetti waxtaankat yi rek am waaw ki tey di waxtaan ak jaami ba am leen hmm. ak ki nga xam ni day teengal rek hmm. di xas rek. Mm-hmm. ak ki nga xamante ni boppam rek ko ñor. Mm-hmm. ki boppam ñor lu muy def rek ko ñor. ki boppam ñor lu muy def ñor mooy amul lu muy wax ak lu mu dul wax moom contrôlé wul dara. Mm-hmm. moom na pare rek am li muy am. waaw waaw. du waxtaan yàlla nee yoon yonent bi ne ci xisee koy bégloo rek xisee yi nga am bu ko waxee nit ñi bég. waaw yooyu ci lay nekk. waaw moom boppam rek moo ko ñor moom. waaw am na ñu naan hey hey hey. mel ni kuy dab kii hey. waaw oh. jooju oh. waaw waaw. moo tax waa ji ne wàññi leen yuuxu yi. Hmm. tey dal. Hmm, am hmm. na benn waaye ma dégg mu ne yéen ñi yor daayira yi. wàññi leen yuuxu yi tey dal. ah jaruka jaruka de. ndax soo dalee xam nga dafa am benn waaye mos a dem hôpital. bi mu demee docteur bi xool ko ni ko yow looy liggéey. mu ni ko man. damay te gàmmukat la hmm. mu ni ko yow gàmmukat mooy lan. mu ni ko hmm. damay waxtaan. Hmm. mu ni ko mais waxtaan mënu la tooy yow da nga fatigué. day dog luy sa problème. daxa dog tipp xanaa yow doo seetaan Serigne Cheikh. ndànk lay wax mu ni ko yaa ngi lu bokkul de Serigne Cheikh daa mat la de. kooku mën na jël taam di si ngomam ndànk. man bu ma feemul du ma am de. bëri nga bu yebee du yëngu. bëri nga bu yëngu est-ce yàlla du ko nangul. mais ah ankay. Ah, waaw en tout cas li ngay wax na am yàlla rek na am yonent bi. te pourtant yow nag imaam dafay ànd waaw man léeg-léegi ma kii. waaw waaw waaw mooy mooy xoram si. waaw waaw gis nga ma imaam. Euh, euh, dafa am loo xam dama ko mës a dégg sa waxtaan mooy nit ñoo xam ni. Hmm. parce que dama la woowoon sama ngénte nga nga ñëw nga waxtaan ja. nga ànd ak sëñ Fallou Rahman mu hmm. indi la. nga ñëw fa di waxtaan dafa am ñoo xam ne nit ñi dañuy bëgg dara ba ñu ko mën a bàyyi tàmm dara maanaam accro ci. Hmm. dinay dal nit ci cigarette. dinay dal nit ci guro. dinay dal nit ci. ci tàngal. dinay dal nit ci singom. waaw ci yooyu waaw. am na sama benn maamu kajoor. waaw noonu daloon na ko. Hmm. cofeel la loolu maa ngi doon waxtaan ci cofeel. waaw cofeel waaw waaw ma ni nit. gi nga cofeel day fay fu nekk góor gi di ci yëy di yëy ba mujj bi. muy yëy noonu amatul bëñ. Oh. muy joos guro. guro waaw daan def joos. joos xam nga ko bënn Nescafé. waaw joos bënn euh, porte Nescafé yi kubéer gi joos ba mu bari. waaw nga mëq. waaw ba kon sa bopp. waaw mu dem hôpital ñu ko bàyyi. bàyyi lan guro waaw bàyyi da dee de Mhm. mu ni ah ñun ko waaw ah, ah, waaw parce que fi mu guro gi fa mu xasaf laal mi ngi koy yàq mhm. mu ni ah ah baax na kon waaye comme cofeeloo naa guro te yàgg nag moom xaritam la mm. bi mu ñibbisee rek muy añ mhm. daal di woow alaaj seexu géey mu ni ko naam maam mu ni eh, jëndal guro mu ni ko maam hôpital nga jóge de mu ni ko jëndil rek te noppi mu daal di dem jëndi ñëw mu ni ko raxasal mu raxas mu ni ko toogal nii mu toog mu kort ko di ko del yeey may dégg ala seexu matt mu ni kak mu ni wëy sama ndey ja noonu laa ko daan defee xam <laughs> nga ni kooku bàyyi na mais cofeel la ngay def. Oh. waaw cofeel ndeysaan. cofeel dafa garaaw de. dafa garaaw. gis naa ko moo tax si góor ga wax ko in kaana xubbuka saadiqan la ataatahu. innal muhibba liman yuhibbu mutiun mm. mu ni cofeel pire. Mm. du bàyyi borom. Mm-hmm. da koy topp ba ci bàmmeel koo mm-hmm. sopp topp. Mm-hmm. ah cofeel kenn xamul lu mu doon. gis naa ko ci ñaan ñaari góor cofeel moo raw bëgg. ah mais yéen gée ngeen ko. xool ke xool leen ko ci seen sketch si boobu ngeen doon wax wiiri wiiri. waaw waaw. sa digganteeg ndaw saak mbur sa. waaw waaw. ca fase na ko fase wu ko. waaw waaw waaw loolu rek. waaw xam nga ni loolu waa ji ñàpp rek ne du bàyyi. waaw. ah ku dem ba may mbëggeel la wala cofeel. cofeel la. waaw cofeel ma def ni lu ñuy cof la nii rek. yii cofeel la raw. yàlla dafa am cofeel ci yonent bi. Hmm. allahu koo amul cofeelam doo ko fan mm-hmm. dëgg la cofeel fële nga mm-hmm. yàlla nee na yonent bi du suma xarit xarit moroom nga koy def mm-hmm. du sama copain sama soppe la ndeysaan mm. dama ko sopp mm. dama am ci moom mm. cofeel mooy jur ñeewante ñeewante mooy jur soppeel cofeel ñeewante lay jur allahu akbar koo ñeewante nag da koy sopp moo tax yàlla ni dama sopp yonent bi dama ko teg li ma ko teg ba pare wëlbati ko waat sopp ko daal. Hmm. waaw ñeewante ko ndax amoon ndey amoo baay ma yóbbu ko maam ma yóbbu ah diira vingt cinq ans yi ma may la fi soxna may la ay doom ray leen sa soxna sa défense ak sa finance yëpp ma reyandoo leen benn semaine. Hmm. Khadija ah ak euh, Seydina euh, Kële Abu Talib. Hmm. ñëpp ma rey leen. ñu koy fitnaal dem Taïf du ay xeer lu ne mu dugg ci ndeysaan 63 ans musul dund honneur ba xëy dem barsàq mu ni dama ko bëgg mais dama ko ñewante ndax li ma ko teg ah sallallahu alayhi wa sallam kon nag yàlla ku mu def fitna bu yeboo nga nga xam ni xanaa xamoon nit ñi ñoo teggi seen yoon Mm-hmm. xam ñu tegee seen yoon mm-hmm. yàlla dafa jël professeur bu mag jox nu ko waaw muy Seyduna Muhammad mu nu roy leen ci moom mm-hmm. xam nga lu tax yonent bi xëy na war a ndékki ndékkiwul tam xarit jot na yonent bi amul tam xarit góor gu baax nettali ne ni wa hakada li ma wax nag fii yow mi asura ci bisu tam xarit la xew ñëpp cere rasulullahi amul cere te moom bu ko sañoon mu am bu ko neexoon mu am ko ndax day romb xeer yi ci màkk ak yëpp ñu ni ko yow la neex rek waxal rek loo bëgg ñu doon rek ñu doon ko nga jëfandikoo ko mais yonent bi muñ ko ba bi muy mayee Fatima bëccëg bi mayee Fatima bi mu xëyee amul añ mhm. ndekkiwuñu añuñu Fatima reeruñu maye ko mu sëyi mhm. moo bi mu ñëwee néegi naa Ali fekk alin teg benn benn sër su ndaw mhm. ak benn boo xam bu ñu sàngee seen bopp seen tànk feeñ bu ñu sàngee tànk yi bopp bi feeñ Fatima jékke jooy mu ni ko looy jooy sëy bi demagul fenn boobu bëggul nag ma delloo la say mbokk mu ni ko jooyu ma loolu de mhm. damaa xam ni yàllaay buur mhm. ñetti muuraay laa amoon ñaari dem na benn ma dese te xaw ma fan la ak nan laa naka loolu laay jooy mhm. waaye du sëy ndax bu dee xiif ak mar tàmmee naa ko suma kër bàyyi rasulullahi am loolu yàlla jox ñu ko muy suñu référence ñun nag kenn du reer mbaxal kenn du naan soom ah, kenn du def dara sama soxna toog nañu toogu mbaxal ma ni ko mbaxal laa bëgg tey mu toogu mbaxal mi nuy añ am gan ah mu découragé wu naan lépp maama ñu ciy dugal billaay topp ma rek toggal mbaxal ma ni ko dugalu ma la ci de lii am tey waaw <laughs> kon lu waay na bee gën allah wala <laughs> kullu farle farla laaw farla wax leen lu na gën ah. allah kullu farle kon la laaw fadloo. mooy borom ngeen loolu mënta ñàkk. mais mais mais mais mais mënoon nga ko suturaal nag. waaw. waa déet xam nga jigéen amul lu dul sakk ak sutura nag. yow tam ko waxoon benn du garaaw ndax man suturaale naa ko nu ne. Hmm. waaw waaye nag xam nga tamit am gan. waaw il faut que jàngal leen. waaw ndax doom yi su ko tax. waaw. ndax gënuma rasulullahi hmm. moo tax yàlla bind ma bind sama ndey bind sama baay waaw rasul daan na toog këram cin du tàkk mais xam lu ma ci gën a neex bu ñàkk gi ñàkk ci bañ a tàkk de ah. mais ñàkk gi ko bi nga xam ne bu ñu génnee ci mbedd mi ay doomam du ñu ko wane ah. ba nu koy xam ci ñoom alaaj seexu bari na koo xam ne bu añul ñëpp xam ko dëgg la bari na jigéen boo xamante ne nii bu génnee ci ngoram ah. foo ko woo reera wala añ mu bañ xam nga lu tax hmm. daa bëgg a baayam waaye am loo xam fu mu génnee nga xam foqaleem day am jigéen lu leen dal sa war maa leen ko yor wala wala seen waa kër togg mbaxal nga génn dem kër jàmbur ni seen waa kër mbaxal tey lañ togg di oh, dab di dabu mis wi jàmbur jërëjëf am ta am na góor ñu xam dañoo échec ah am na góor ñoo xam ne seen kër la nga ñu yor di ko defal ndaw sa ci hamburger ak shawarma buñ ko joxoon seen waa kër mën nañ ci am ganaar gu baax hmm. waaye da leen koy xañ seen di leen mbaxal génn jël doomi jàmbur yóbbu teral am na góor waaw am na góor daa toog ci resto bi. ci ci restaurant bi. waaw. gars yi di ko xool mu yàgg ne waa ji ak ni mu rafet ak maire bi mu toogal. waaw. yëf yi sax naqari ko mu leen eh waa restaurant bi yéen laay wax. Hmm. kii sama yaay la. lu ma yéene jigéen kii laa ko gën a yéene. bala ma fay indi jigéen sama yaay mii laa fi di ko teral. ndax kii damaa ko damaa seq ak moom ruy boo xam ni ak supp boo xam ni du ma ko ko fay ba yomal xiyaam ma cay dawal lii. dégg naa ko bu baax ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw mais mais mais mais mais euh, waxtaan wi am na solo ba dee nañ ma ci sama micro nga continuer tuuti mmh. ah ñu waxtaan tuuti rek a euh, aca ñu ànd seeg sunu partenaire leader orange bi nga mmh. xam ne indi na cinq g bi yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen cee bëgg profité am na li nga xam ne mooy 150 euh, mots bi ci 250 francs ah, am na li nga xam ni mooy 50 5 5 5 5 giga bi 5 giga bi nag boobu bu bu mag la 1 giga ba 1 virgule 5 giga euh, passe 5 giga bi rek ak yëpp am na mille francs ba mille francs mais loolu nag euh, pour nga mën cee bénéficier wu il suffit simplement nga jaar ko ci sa Orange Money waaye nag ci sa application Max It ah boo mag boo amul mag max it euh, defe naa doo mën a bénéficier wu ci li nga xam ne mooy euh, xéewal yi nga xam ne 5G moom la joxe waaye ba tey ànd ceeg euh, sunu sponsor ki nga xam ne mooy Dreams Cosmétique day by day mm-hmm. day by day mooy gaamu xale la mm-hmm. li ko dalee ci diwu yaram shampoing li ko dale ci démêlant li ko dale ci ay seen ay parfum mm-hmm. ak lépp loo xam ne nag xale da koy soxla pour yaram wi neex ah, yaram bi belli yaram bi xale bi neex a fop ah lépp rek euh, Dreams cosmétique indil na leen ko euh, muy euh, seen gaam boobu ngeen di gis ci écran bi muy day by day ñooñu ñooy sunu ay sponsor maam la waaw loolu boo ko waxee rek sunu xel day dem ci xam nga xale waaw boo ko fobee waaw liy jóge ci moom mooy dépendre que ne nanka na mu yàgge ci yow waaw léegi wax naa la ko ko koroog nee naa la léeg nga gis xale boo xamee sa xel mi yëpp day nekk ci yendoog moom waaw waaye am na gune yoo xamee neexu ñoo yendol lu tax ndax seen yaay Euh, ñu nekk melokaan woo xamante ne doo am xem xemmem tef jëmale ko ci ñoom hmm. waaye gune yi ku leen gis mën a yendoog ñoom suu ba ngoon bu ñu jooyee nga nag léeg nga léeg-léeg nit nga bàyyi njiw bàyyi ko ci ci melokaan ci xale ci kuusam waay wala yooyu bàyyi ab kuus euh, ci ginnaaw mu dem ba euh, la ma la waxoon rek mel ni ku jëm mbappat loolu kenn xamul lan la ab xale da ngay dindi kuusam aw tàngaay lan ne xam nga léeg-léeg ab xale day jooy nga naa kii lu muy jooy ku ko dóor kenn na jooy dóoru ko li nekk ci ginnaaw gi moo yàgg day dem ba da koy sonal <laughs> loolu nag dañ koy teel a génne ba defee ku ko gis man am xen nam fee jël ko ci moom ba pare nanu fonk par foo tàng na léeg-léeg nga daj ak nit mu am odeur boo xam ne day jóge ci moom di ñëw ci yow uh-huh. doo ko mën a wax dara waaye bu mënoon a am débat bi uh-huh. ah, ah lëkkaloog ñoom mooy gën waaw ah. léeg-léeg di rombal sa ay waaw loolu imaam li ci wax xet bu naqari lan la ci lislaam wax. waaw loolu baaxul yal nañ ci yàlla musal yonent bi dañuy aw nazaafatu min al iman. Mm-hmm. mu ni xet dafa bokk ci gàmmu yàlla. Mm-hmm. xet bu neex. Ah. dafa bokk ci jaamu yàlla. Mm-hmm. set. dafa bokk ci jaamu yàlla. man am na loo xam ne ni ci tata la ma dalee. Eh, tata. bari na ci de alquranul karim toog naa ñetti fan yoo xam ne mënu ma lekk dara. su ma xel mi tey rek. Ah. benn waay boo xam dafa dugg. Mm-hmm. bi mu duggee ba ni ñoo kos weñ wax. oh, oh <laughs> yàlla xam na ko. ala def weñ wi. alaaji baaxul te kaay alaaji ma xamal la benn affaire. waaw ñaari xeet lay doon. Ah. xetuk salte gi ak xetuk saltewaat gi. luy loolu saltewaat gi xam nga mooy xet gi mu toppatowul boppam ba salte mhm. ak ket gi nga xamante ni di day am janaba te xamul nu ñuy sangoo farata di ànd ak moom xanaa xama boobu xet a gën a oh. am na am na loolu am na jullit eh. am na jullit du sangu janaba mais mënuñu ko jéemuñu ko jàngi danoo rëy ah luy loolu jullit alaaji taq sobe du sangu janaba alaaji waa barke alquranul karim ah loolu jigéen ñoo xam duñu sangu janaba góor ñu du sangu janaba te loolu dafa am xet eh xet bu bon la yor. la ilaha illallah mm-hmm. te li ci gën a déew nag da ngay def ay déodorant def yëpp yàlla bàyyi ba nga noppi mu fomp ko mënu ci dara déranger xet gi ndax bii da ko war a toppatoo da war di sangu muy deñ mm-hmm. oh. la ilaha illallah dafa am xetu boppam am na xetu boppam xam-xam yi xam nañ li may wax dafa am xetu boppam moo tax nit dafay sangu janaba mu set dañoo sopp sax bul fanaanook moom Mhm. ba ci charia dani même bu fekkente ni ànd nga ak sa soxna sax mhm. nee na demal nga tuuri ndox yeesal njàpp boo mënta sangu mhm. nga def ko mu wàññi tuuti waaw boo ko mënul boo ko mënee nag ba mën ko demal nga tuuri ndox nga sangu door a tëdd képp ku koy def dun la liggéey ba jàpp la bari na ñoo xam ne ci seen biir janaba lañ leen di jekkoo ba jàpp leen ma xamal la alaaji bari na ku naan kenn mënalu ma dara wax na dëgg góor fi léegi yaa ngi ànd ak njàpp kenn mun laa jàpp. Ah, njàpp yi mu gaawee toj mu ah, léeg-léeg am njàpp yi gaaw a toj. waaw xam nga xale yi day. jamono bi toll nii moo mel noonu lu tax ba pare jamono bi jamonoy feebar yu bari la. Uhuh. Ah, jamono ñu toll day toj njàpp. Uhuh. bari na xam ñu bari ñaa ngi ñàkk seen liggéey. Uhuh. ñu bari mënatuñoo continuer seen liggéey. feebar yu bari la. am na feebar yoo xam ni mënatu la may nga toog fukki minutes yoo jubul yeesal njàpp bari na tëfëru taxi yoo xam ne nii mënuñoo daw diggante Dakar ak Guédiawaye te contourné wuñu luy loolu lu tax bu ñuy daw tuuti fu ñu gis mu lëndëm ñu taxaw tuur ndox départ ak moo te koo ci gis yaa ngi biteel bu ndaw bi dañuy saw saw mu ah, loolu feebar la day am feebar yi ñoo bari du ci ñoom hmm. mais feebar yi ñoo bari te nit ñu hmm. contrôlé tunu suñu bopp seen bopp waaw waaw xam ñu war a lekk ak lu ñu warta lekk bu njëkk da gis mag mu yow fajar yeesal njàpp bu ragalul yàlla julli ci gée moom lay neex rek mu yeesal ah léegi day dañuy sal rek moo tax sëñ Fallou mi ngi ciy gis lu ne. gis nga ko. waaw lu ne la ciy gis mi ngi faj lu ne. waaw alors ci salte gi la ñuy descend parce que c'est très important. waaw man léeg nga gis booy yi. sol caleçon woo xam ni. baat ki rasululaay bu ñu juutoo. da nga naan lii moo morso tayukaay bi la wala. wala wala wala wala wala fobee wala wala wala cher père bi ñuy fompee douce bi la. fu rëddu farata gi fii. day ñuul kuk. te booy dañuy kiris koros ba pare. ñoo mën a juutu nag réew. ba pare dañuy def nii quoi nii. waaw fii nii. waaw mooy raw sans pantalon. non. <laughs> déedéet ak bi am tere yi. waaw. waaw dañu ko sopp xeetu sopp goo xam ni. man wabi sharafil quran léeg-léeg nga dugg ci jàkka ji. toog taxaw da ngay sax rus. da ngay gis ñi xeetu kalson bi di gillee te xam lu koy def ma wax la secret bi ñu ñëpp jaar nañ ci ndaw. Hmm. da ngay gis xale boo xam day jël benn kalson sol ko semaine du ko fóot. Oh. léegi nag bu demee sangu ji ci saase. lay mhm. jëlaat caleçon bi sol ko. waaw loolu léegi waaw guus googu muy guus nag. même caleçon bu set boo ko jëloon fóot ko tey wowul. nga sol ko balaa bëccëg guus googu. bu ànd xeetu parce que nit dafa ruqee. Eh, xeet yooyu bu ca attaqué nag. bu kilim bi attaqué rek. day tàng yii day tàng yii. xet yi day tàng léeg nga gis ah waa guna romb la naa laa nii. nii nii nii mel ni ku yaru loolu lan la. araw li ñuy def duñ jug ci araw. waaw mel ni kuy araw rek. loolu la ah loolu moo koy waral moo tax tabaarakallaahu seet dafa am solo. façon ah, ah. seerul nga ut douze. na doon coton surtout coton loo ñax xamu naan ka ñu danoo sonn. Euh, <laughs> ah coton coton. am na. am na de semaine. waaw loolu lan koy sol. te saa yu sola sangu solaak sangu solaak loolu sax màpp. waaw xam nga xam nga sa xam nga saa dafa am loo xamante ne nii moo nekk ci ah, ci réew mi démb ak set dafee nekkoon démb ba abarki démb wax naa ko saa nee naa ko sunu yaay yi da nga daan dugg seen kër yi fekk ñu daan lay seen ah, seen ah, seen néegi dañ ka daan lay ay pajaas fa moo fa daan ne hmm. ñu dugal fa ay ndaa yoo xamante ne ni ay njaxalan ka daan def ndaa yooyu nga xamante ne boo ñëwee day sedd guy hmm. boobu ak set ngi ci réew mi hmm. li nga wax léegi dafa am ak set dafa bokk ci jaamu yàlla démb ma mag ñi amuñu woon matériel waaye danoo setoon matériel amul woon démb léegi la matériel am ba pare salte am waaw léegi salte am matériel am na salte am waaw loolu pour lan la léegi matériel yaa ngi ci réew mi waaye salte gaa ngi am na jigéen yoo xam ne delloo nañ leen ci si seen kër yaay mm-hmm. seen kër baay mm-hmm. waaw waaw waaw jig na góor waaye jigul jigéen mani am na jigéen yoo xam ni nekk nañoo seen jëkkër mu muñ ko ba munatuñ koo muñ. ñu ñu ñu delloo leen ah, seen kër. ba jigéen delloo nañ ko kër ndeyam ci ñàkk mën a togg. waaw jigéen delloo nañ ko kër ndeyam ci ñàkk a set. Mm-hmm. ba waajal gi ngay waajal ngir tëdd sa borom. dëkk mm. sa borom kër ci kaw lal bi guddi. Mm-hmm. góor. Mm-hmm. jigéen ñaan na baat. waaw. yóbbu kër ga ba nit ñi tànc ko ci lan moo tax bëggatoo sëy mhm. mu wax nëxër fan nu parce que mooy yey gis nga alaaji waaw ñëpp war a set waaw waaye jëkkër jigéen jabar ñoo ci rawati mhm. dëgg la nga xam lu tax mhm. seen lépp jege yow dañuy jàngale rek waaw non yow lee sa borom kër waaw seen lépp maase waaw sa bakkan waaw bakkanam waaw sa gémmiñ gémmiñam gémmiñam benn ngeen di doon léegi nag. Mhm. xoolal diggante bakkan ak gémmiñ ñu ngi. daxa jege daxa jege daxa jege. li fay gilli war naa set. Mhm. dëgg la. Mhm. li fay gilli war naa set. waaw waaw. moo tax boo demee ci jàngale siyaare dañuy wax ni. am na ñu koy posé sa question naan ndax ki am jëkkër ak soxnaam mën na noo ànd kenn ku nekk di sex awray moroomam. oh. xam nga ñu ko de la nañ ko. bëgg nañ ko torop alquran xam lu mu la wax. lu mu ci wax de waaye bëgg nañ jigéen ñi seen tool lañ. waaw mm-hmm. tool nag ku am élève sañ ca bayee nu ne. rek la la tere. Mm-hmm. bul ànd ak moom fa muy demee toilette am. Mm-hmm. na tifaqan. waaye lu dul lool lu ngeen def baax na. waaye attention. jamono bii laajatu ko. fekk jigéen gu salte. toppatoowul boppam. nga ah. sëgg ci moom lépp. jàngoro ci jële mu ci sa biir. loo ci am da nga ko yàlla tere yàlla tere boo demee hôpital bu mu la bett boo demee hôpital bu mu la bett daa daa set dafa am solo mhm. jigéen da ngay toppati sa bopp te góor garaawul mhm. góor mettiwul te jigéen alfa bari ay ruqam setu mhm. poqotaanu góor ak bu jigéen bokkunu bokkunu moo tax as xam nga lu tax ñoom ke à chaque fois li muy liggéey. Mm-hmm. yenn yu bëri loxoom mm-hmm. day jóg ak a mm-hmm. mais moom ku jigéen ki waaw. waaye jigéen en général boo fa fekk ay cëram day wàcc. Ah, ah, waaw ah. Oh. waaw kon kooku noywul waaw kon war nga bala ngay ànd ak sa borom kër. nga làqatu. mais am na ñoo xam ne nag nu ñuy toggee ci waañ bi noonu la ñuy demee tëdd ci kaw lal. waaw loolu yàlla tere yàlla tere boo ma ñëwee tere. waaw am na jigéen ñoo xam ni sër ak set moom. waaw dafa mel ni cosaan la ci ñoom. ku jëm a mitin mais te ku jëm mitin cim sama benn wëllëre bu baax daf koy nekk. mais te ku jëmam mitin loolu daa man loolu loolu rek laa sama raf yi bañ def naa ci vidéo am na jigéen ñoo xam ne sërëg sërëg ti sar na waaye yow ma ne nan waa bàyyi ma booy tëdd nag waaye luy loolu eh, luy loolu loolu booy dem ci lal booy tëdd waaw yow cim sërëg ti sar cim bu la yàlla làqee ki nga bëgg waaw hmm. ngeen ànd làqoo waaw waaye loo mën ci tooyal xolam na waaw sër tey bu laaj sër loo mën ci lu yiw turu rafet rek. na nooy. mais sër yiw na. na nooy yiw na waaye. sëri boobu mar xam li ngay doxantoo ci. ah imaam nga baal ma nag am na sër am na sër yoo xam ne nag. alaaji attention nga baal ma. waaw léegi yow lan moo tax jigéen. sañ te jël dessous. waaw wala seen ngàll yooyu. waaw yendoo ko ci kër. waaw. Hmm. yow ñun ñii comme fi sa soxna defoon yendoo ko ci kër demee ko marché toggee ko añ. Mhm. su ñëwee doo ko yet. Mhm. waaw mais dessous dafa yaraax xam nga moo tax. Mhm. ah déedéet ma la doo ko yet. waaw waaw ko mën a teree nag. noonu nga ko mën a teree sër ci biir. te xam ni bee fee la jekk. mais mais sër yi nag am na yu ci yëngal néeg de. waaw am na sëri bo marle yi. am na sëri bo marle yooyu xamee. waaw moo tax sariya dafay bañ. waaw booy ak sa soxna sax ngay wax. ah waroo wax. waroo wax. Ah, mooy de waaw waroo wax sax. boo mais am na ñuy dagg ay saagay ndey de. waaw waaw waaw loolu lan lay si lisaan ba saaga yooyu lan lay lisaan ba. saaga yooyu la ñuy bañ ak jikko loo mënul. day attention même boo ko kër gi yaa ko mhm. nga dëggal ko mu dëggal ko ci biir ànd ba. kër ga moo ko moom. Ah? Ah! xëy na ci biti yi ñoo kon de bëri na la xaar sax koy topp de. na góor ñu luye. kon de bëri na góor ñu luye. man nag man li nu maye ci kër man mandikatu guddi. lee mandikatu guddi. Uh-huh. kuy mandi guddi loo ma wax du ma ko gëm. bu ma doon jigéen nit góor lu ma wax ci néegu. ci ci ci ci ci moment boobu. waaw du ma ko gëm. dama ko koy jéggal. d'accord waaw mm-hmm. mais nag ci kaw jigéen bu ko xam. waaw dama ko koy jéggal waaw wala ma ne la woon ba nga tollee ci bërëb sagam. waaw la nga ma waxoon. dëgg la ci yow. wala fa nga tolloon a tax. léegi lan la léegi nga def ni yonent wax. nga def nan. ah booy yi dañuy fexe ba doo noppi de ma ñu ngeeg mante yoo xam ne booy lay wax loo nga dul xam da ngay wax te li ngay wax doo xam trois heures du matin ñun dundoon ay nit da dundoon nit léegi dama lay laaj l'islam nu wax ci nga wax loo xam ne defoo ko ba pare ah, ah, trois heures du matin sa jabar ah, am lu mu la wax loolu mu lay wax noonu pour ànd yow loolu lan la ka l'islam waxal léeg-léeg du nekk nit du nekk nit. voilà Issa li mu xam mooy li nga wax ci muy dëgg ci yow. moom it muy dëgg ci moom. waaye yow léegi attey jamono bi mooy. waaw attey jamono mooy li alaaj Seex wax. dëgg yombul foofu. li mbaa dëgg dafa yomb. <laughs> li alaaj Seex wax xam nga mooy lan. lii kat bi ma koy wax xaal bi ma tolloon. waa saaga nii saaga moom. lan la moo tax ñu nit lii xaraam na. dafa xaraam ne saaga yiwul. ah nit mais fa nga tolloo tax nga saaga yar mais nit mën nga ànd ak sa soxna te doo saaga. waaw mën jë jë mais ñàkk yar la. mën jë li yow mën jë lay saaga tamit de. mais loolu mooy ñàkk yar gi mais soxna su yiw ah. xam ni lii ngeen di def il faut ku ñu xam ni ànd jaamu yàlla la waaye man nag imaam dama lay xamal loola fa mu tolloog na mu amee doole waaw léeg-léeg jaamu yàlla la nga noppi rek mais hmm. <laughs> doo ko man doo ko man xaw ni pat tubaab yi mën jë la wax mën jë dooni u mën jë ñoom mën jë la ñuy wax ñoom mën jë xaw ma ko ah, ay may got may got axaw ma fu muy ne day sori ku ne ngay woo gone li dañ ko war ak ñoom nasaraan booyam jë may got ku na jaamu yàlla la jaamu boo ci sa bopp waaw du métti waaw mais boo teelul sa bopp rek <laughs> jërëjëf jërëjëf aca ñi may wax ni ñi ngi may wax ni imaam imaam ñi ngi may wax ni émission bi dafa neex ba ñu yokkal la ci dix minutes acca mais dañuy arrêté nag acca ñu àndoon teg euh, suñu sponsor euh, leader orange ak euh, seen 5G bi nga xam ne nag ay cëm nga noonu 1 euh, giga bi 1 virgule giga bi ba 5 giga bi mën nga ko amee 1000 francs ba mille francs waaye boobu day fekk nga awee ko ci sa Orange Money ak sa application Maxi It am na boo xam ne tamit 150 mots la boobu nga surfer ci meilleur réseau du Sénégal muy Orange boobu 250 euh, francs la waaye ñu àndoon teg euh, day by day muy Drams Cosmétique tamit ñooy ñaan di sunu ay spon sunu say sunu ay sponsor maam daan ma bàyyi la nga tàggoo. waa li may tàggoo mooy di nuyu euh, njaxat mi nga xam ne moo ne caare yor bitig ba fa may jëndee mouchoir bu may ñëw fi xam nga ci tàngaay lan ne mooy mouchoir yi may jox léeg-léeg boo ñaqee la yi ni passante moom ma koy jaay njaxat doon nit ku baax léeg-léeg bu ma yorul sax danaa maan jëlal ba nga wàññeeku hmm. ma koy nuyu di nuyu waa caare di nuyu waa yëmbal bi comme ni ma koy waxee rek di wax ne ñu ngi leen di jaajëfal di wax bi seen émission la di nuyu ki nga xam ne mooy Pape xale la xale bu ndaw kër Mati Cuun la dëkk hmm. doon xale bu ma tax lool dama bee dem léegi maa ngi naan kan su ma demee naa la may émission bi Pape la maa ngi koy nuyu baax a baax a baax jërëjëf euh, aca imaam ñu bàyyi la nga waaw alaaj seexu jërëjëf di kontaan di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm mm. ci réew mi jàmm def ci Sénégal jàmm. amiin amiin loolu rek laay ñaan di nuyu nag bu baax nag ki nga xamante ni mooy nekk suñu diggante. Hmm. Serigne Fallou Rahman Ndiaye ñaanal ko yàlla defal ko jàmm. moo baax dëgg yàlla ku baax ma yéene. ndeysaan ma bëgg sopp ma yéene ma nag. wallaahi tabaarakallahu di ko ñaanal yàlla. waaye nag di nuyu bu baax tabaarak soxnaam soxna Bousso. soxna Bousso Rahman fa lañ jógee di ndokkeel bàyyi ca soxna sax. waaw ak mboolem koo xamante ne ña nga nekk ca équipe ba ca kër ga. Hmm. di nuyu suma yaay moom rek laa fi dese ndeysaan suma taaw bàyyi ba Moustapha Ndiaye ñaanal leen yàlla defal leen jàmm ñaanal ñëpp yàlla yàlla defal leen jàmm di nuy bu baax na kenn ci man yéene ma di def ci man lu nekk ndeysaan rawatina suma daara ji mi alaaj njaga seen mm. njaga seen tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla soxna soxnaam rama ndey ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla nuyu waa koñ ba yëpp bàyyi wuñ kenn di ñaan yàlla tabaarakallaahu ca daara jooju nga xam ne songo nañ ko alaaj seexu daara ji nag wax ci yàlla def ndam jërëjëf acca mu ngi woon seen émission mi ngi woon noonu muy euh, acca mi ngi noonu kon émission bi mat na euh, ñu leen di dig daje ba ëllëg jàmm incha allah